réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. asalaamaaleykum amis chers internautes yéen sifo di seetaan les patriotes TV da jàmm si xibaar li gën a fës ci xibaar yi naka gannaaw li nga ne moom moo di dëkk baa ngi tàkk mbéy bëgg dee nag moom moo di jeunes yi naka gannaaw bu ñu meree lool li nga moom moo di Ousmane Sonko ñu ngi ko def li nga ne moo di résidence surveillée loolu tax na nag jeunes yi yi ñoo ngi waajal nag dem ki nga moom moo di Macky Sall kat moo nga waaj a li nga ne moom moo di aéroport bu yow nee nañ da ngi dañ koy jéem a topp foofu noonu mu nekk ndax lan lañ koy waaja Macky Sall ak lu ci mënti am rek dina andi lu leer nañ ak lu ci mënti am rek Macky Sall ba léegi ñuy waxtaan ak yéen moo ngay waaj a wàcc fële aéroport bu yow ba tax na Ousmane Sonko ba léegi gendarmerie daal ñu ngi barricade li nga ne moom moo di këram sëriñam sax tey jii ñëw na pour jéem a am accès si moom ak li nga ne moom moo di yeneen leader yu bëree bëri mais ba léegi kenn amul accès li nga xamante ni moom mooy di Ousmane Sonko mu doon loo xam ne lu doy doy waar la ba tax nag am na ñoo xam ne tamit neen Ousmane Sonko am na nu muy def sax tey ca guddi dinañ ko fi jëlee yóbbu ko beneen bërëb boo xamante ne kenn du xam fu mu nekk.